نحييكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي تي يالا غناو با ني سانتي سونو بروم ا أه، تي ماي غيم ني ماي تيوات في تي سين اميسيون خمسه دينه ngen and kok sen site internet al vision fa tabaarakallaahu ñu ngi nuyu bokk yépp fu ñu mën a nekk ci àddina bi rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziar euh, nuyu itam suñu caméraman bi El Hadj Lo ak itam mbokk yi mu ko àndal yépp ñaanal leen yàlla yàlla yàlla sàmm leen te aar leen te dëgëral leen ci barke yonent bi xam naa mu mel nii bu delloo ci suñu waxtaanu tey dafay dellu ci jàkka giin ya e, ndax jàkka mooy néeg bi nga xam ne fa suñu borom di recevoir ay ganam comme ni nga xamee ne président palem ba noonu la fay recevoir képp ku ko ñaan audience borom bi itam nee na man moom soriwuma boo ma soxlaa rek demal ca sama néeg ba ma recevoir la nga wax sa soxla Euh, néeg bi nga xam ne nag fi la borom bi di recevoir nit ki dafa am comportement bu fa nit ki war a yore ndax wolof euh, ki nga xam ne dafay xëy di toppatoo néegam def ca la ca war fobeere bale lal taal cuuraay naka noonu ndekam néeg ba lañ koy def rawatina fa ñuy jaamoo suñu borom ndax suñu borom moo wax ci alquran ne وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا yàlla nee na mboolem jàkk yi nekk ci àddina bi yépp samay jàkk la bu fa kenn woo kenn kenn ku bokkutal sunu borom moo tax léeg-léeg nga dégg wolof ne jàkkaay diw xëy na bu ko diw tabaxee itam la ko tabaxee suñu borom moo ko jox xanaa lu nit ñàkk ñàkk ñàkk nag soxor ba ki la jox alalam nga tabax boo paree war nga ne ko jërëjëf e, mu di néeg bu nga xam ne sunu borom nee na mboolem ñi nga xam ne ñoo fay dem di ma fa tudd di ma fa jaamu nee na ñuuñu ñooy ñi nga xam ñoom ñooy samay xarit ñooy samay wëllëre ndax li tax ñu war ko fonk ñaare bari na lu xew ci diine ca jàkka ja lañ koy defee bu dee takk sëy ñu ne ca jàkka ja bu dee li kaaf ñu ne ca jàkka ja bu dee naafi la ci weeru koor ñu ne ca jàkka ja bu dee laylatul xadr ñu ne ca jàkka ja même ba ci néew bi nga xam ne dafa génn àddina buñ koy sang ca jàkka ja lañ koy sangee buñ paree itam ñu war ko jëbbal mu dem ca këram gu mujj ga dañ koy teural ca buntu jàkke ja pour wan ko ne ko yaa ngi tàqalikoo ak sa xarit jëm sa kër gu mujj e mu mel ni nag boo xoolee ci kaw suuf mboolem li nga xam ne moo fi nekk yi fi gën a màggal suñu boroom bokk na ci néegam bi moo tax dañ ko ko war a fonkal toppatool ko ko di ko ko defaral na mu waree ndax E, fi nga xam ne tey fa lay nit ñi dëkk moo xam nitu yàlla moo xam ku mu mën a doon daf koy toppatoo defar ko ba mu rafet kon nag rawatina fi nga xam ne heure boo soxlaa sa borom foofu ngay dem wax ko sa soxla mu jox la la ngay laaj kon fa tabaarakallaahu foofu itam war nañ ko gën a fonk mu mel ni kii itam jàkke am na ay teggin ndax dañu bëgg boo duggee ci jàkk maanaam jàppal na ci néegu borom bi nga nekk dafa am noo fa war a toogee dafa am comportement boo fa war a yor léeg nga gis ku toog ci jàkka jàpp benn tànk bi sànni fële jàpp beneen bi sànni fële toog ak ka mu dendeel di waxtaan waxtaanu àddina te itam yooyu dañ ko tere ci jàkk ndax jàkke ñaare boo fa toogee lenn rek moo war a nekk sa soxla soit nga jàng alquran wala nga yor sa kurus di tudd yàlla wala ngay naafi la waaye foofu waroo faa def leneen ludul mbiru sunu boroom bokk na itam ci teggin yi dañu wax ne jàkka waruñu faa xëpp lépp loo xamante ne dafa tilimal li wër jàkke ji moo tax ñuy wax waaye ku ne xam na ne nit amul sañ-sañ wala ñemewul dugg ci biir jàkka di fa këpp mbalit kon li ñu bëgg mooy li wër jàkke ji bu fa kenn xëpp li nga xamante ne mbalit la bokk na ci itam na moytu di fa xëpp li nga xamante ne moo di sobe ndax mi ngi mel ni ki nga xam ne dafa fóot ba pare jël fóotin ma xëpp ko ca duus ba wala mu xëpp ko feneen léegi la ngay xëpp ca duus ba kon da ngay wane ne baaxul ñàkk baax gi ñàkk baax kon moo tax nga war koo moytu ba bul ko xëpp ci li nga xamante ne moo di jàkka ja moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci benn xadis ne nit ñi bu ñu xamoon yiw yi nekk ci jàkk ak barke yi nga xam ne moo nekk ci jàkk kon kay danañ profitoo pour daw jëm ca jàkk ja parce que euh, sunu boroom bokk na ci yi mu gën a fonk mooy ña koy jaamu ca jàkka ja moo tax dañ la wax ne la gis nga yow mi dem ca jàkka ja ànd ak mbooloo mi julli sax fay gañ lay fay du bokk ak ki nga xam ne dafa julli moom kose tabaarakallaahu kon borom bi nee na booy dem ca jàkka ja na nga sañse na nga xeeñ lu neex ndax e, bu dul dara itam ay jullit comme yow nga fay fekk te itam lislaam buggul kuy lor mbokk jullitam Euh, fa tabaarakallaahu bokk na ci itam dañu wax ne booy dem ci jàkka bu laal loo xam ne dafay xeeñ lu mel ni ki laaj wala soble loolu sax fuqahaa yi dañ koy tere ndax rek bañ ngay lor nit ñi ci xet ndax loolu lislaam bugg ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana dénkaane euh, ci teggin yi nga xam ne bokk na ci ba tey mooy nee nañu bu ñu jaay ci pegg jàkka waaye itam bu ñu fa jëndee ngir rekk wormaal ko ndax e, sunu boroom lépp loo xam ne dafa bokk ci moom lu koy taaral di ko màggal lañu war a def waaye duñ def loo xam ne daf koy xajamal te itam jaay ci jàkka mën na dem ba mujj nekk lu mel ni marché te jàkka du pour marché jàkka pour julli la pour jaamu sunu boroom subhanahu wa taala la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne kep ko gis muy jaay ci pegg jakka neena na ngeen ko ñaanal yalla ne yow yalla bu yalla jaral sa njaay mi li ngay jaay yalla bo ci am bénéfice e, mu melni ni yonent bi wax na bay tay ba tamit neena mbollem pak yi nek ci kaw suuf pak bi ci gëna amal importance suñu borom mooy néegam bi nga xam ne léppam ci la nekk léppam ci lañ koy joxe kon ku ko ko fonkal mu fonk la e, ku ko ko ñàkk fonk la itam mu ñàkk laa fonk ndax booy xool suñu borom ci kaw suuf mboolem yi nga xam ne fonk na leen ñaar yoo xam ne ni mu màggee ci suñu borom kenn xamul nu mu toll bokk na ci moo di alquran di téeréem bu tedd boobu nga xam ne émission bi paas moom lañ doon waxtaane bu ñaareel bi itam mooy néegam bu tedd bii nga xamante ne fi lay recevoir ay ganam nit nag fi nga am mu doon lu màgg ci yow doon lu rëy ci yow nga xam ne gan goo am foraaye moo tax doo ko nanga recevoir fële fii nga koy résevoir pour fonk gi nga ko fonk foofu doo nangu ko la ko tilimalal doo nangu ko la ko salteelal doo nangu ko la ko yàqal mu mel ni ki itam bokk na ci teggin yi ba tey mooy boo duggee ci jàkk na nga fay sa téléphone parce que jógee bi nga jógee sa kër pour ñëw ci jàkke ji wan suñu borom ne ko dama ñëw pour jaamu la kooku waratoo ànd ak lenn loo xam ne daf lay jax-jaxal ci diggante ak sa borom ndax bokk na ci dafa nekk loo xam ne sax dafay wàññi tiyaaba ndax di julli portable sonné fii wala di julli portable bi di vivre wala yeneen ak yeneen yu sew yu la mën a yàqal loolu ba tey bokkut ci teggi ni jàkk ndax mi ngi mel ne rek tey ki nga xam ne dafa am ak rendez-vous sëriñam wala sëriñam resevoir fonk gi nga fonk sa sëriñ bëgg gi nga ko bëgg màggal gi nga koy màggal tax na boo ñëwee da ngay fay sa téléphone doo nangu ñu lay woo téléphone bi sone ci kanamam ndax lan cër bi nga ko jox léegi nag rawatina nag borom bi nga xam ne nag moom moo sàkk sëriñ ba ba pare ne la sama néeg bii fi nga may jaamoo léegi néeg bi ngay dem di wéet ak sa borom nag nga xam ne dañ wax ne boo kàbbaree yaa ngi jàkkaarloo ak sa borom li ci des mooy nga wax sa soxla léegi naka ngay waxee sa borom sa soxla ba pare mu di la bëgg a ton sa téléphone sonné kon kooku yar bi ak teggin bi des na yar beeg bi des na euh, mu mel ni bokk na ci teggin yi ba tey mooy boo duggee ci jàkk na nga toog toog bu dal bul yëngatu en même temps booy dox ci jàkka ji nanga dox ci doxin boo xam ne bu am yar la bu am teggin la waaye di dox ci jàkka mel ni kuy bëgg xotti jàkka ji walla mel ni kuy bëgg a xotti moket yi kooku bokkul ci li nga xamante ne mooy teggini jàkka kon fa tabaarakallaahu mu mel ni euh, li ñu mayoon ci temps jeex na ñi di leen jox di daje alxamis bii di dellusiwaat ci kat ni yàlla ak mbaaxam euh, ki leen doon defal waxtaan bi di seen xarit seen soppe seen wëllëre Babacar sàll ñi di leen jox dig daje alxames bii di ñëw ci kàttan yàlla ak mbaaxam bi muhammadin wa bi bintihi wa bi baaliha وابنيهم الشبتين أعلام الهدى وبصحبه والتابعين لهم فهم ساداتنا أهل المكارم والندى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته